ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 ci la réew mi di Sénégal fas yéene tànn juróomeelu njiitu réewam campagne électorale yi des ñetti fan ngir ñu door ko jamono yi ñag ñu nemmee ko ab xiiroo am ngaayoo ci biir langu politique gi bu ñuy dee waxante lu ñaaw ci ay saaga ak ay xasante ak waññoonte ay weex-weex jaarale ko ci réseau sociaux yi ak média yi ñeneen ñi moom tàmbali nañoo indi ay fitna ñeel seeni moroom bay songu seeni màkkaan. lii lépp nag nekk aw ay woo xam ne ni ñi koy sooke seen ak njaboot dañ ci mucc askan wi dañ ko umpale waaw wala déet dañ ko xam ba pare noppi bu fekkante nag jamono yi askan wi dañ doon nelaw mën nañ ne yeewu nañ jar gannaaw ban doxantoo ci ñoom tàllal leen suñu mikro ñaawlu nañ fa bu ñaawlu yem melokaan wi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci langu politique gi seen xalaat yëpp mooy utiliser ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci bopp bi parce que boo xoolee ñoom ñi nga xam ne ñooy politique mhm. gisoo ci kenn koo xamante ni mhm. doomam walla sëram mhm. walla yaayam wala soxnaam nekk na ci mbooloo mi doo ko gis kon pourquoi pas ñun du ñu yeewu ñu xëppi suñuy bët ñu xool ci loolu xam ni ko ñoom dañoo yor benn som boo xamante ni campagne day jub si ñu xam ne fii mooy escalier bi Touba Touba lañ def escalier parce que kep ku ci bëgg a falu da nga daal rir ci Touba di nga wax lo xamante leer lo amul di nga digal leen loo xamante ne amul ah léegi na alors yow loolu nonu yang ngi koy utiliser terme yow yang ngi koy utiliser ngir lan bëgg leena jënd yaa ngi mel ku yoron ben euh, saxu dugul rek fekk ay pitax ñu toog nga leen ko sër ñom ñepp ñu nekk ca di cof di cof alors yow di nga am li nga bëgg parce que yow da nga leen di këppatal léegi yow boo am demee ba nga xam te ni falu nga am nga li nga bëgg dootoo leen dootuñu la gisati mhm. te loolu c'est pas normal mhm. léegi ñun jigéen ñi ñun ñi nga xamante ne ñoo ci gën a féetee ndaw mhm. nekk ci di xeex biir di di wax loo xamante ni nekkut yoon di wax lu teggi nag du te jékkul ci ñun rafetul ci ñun. politiciens yi nag ñoom seen bëgg-bëgg lañ xam seen bëgg-bëgg lañu topp lépp luñ mën a def ba falu danañ ko def. muy ñu sacrifier la def la loo bëggut a def ak lu mën doon ñu neexal la ba nga def loo bëggut a def danañ ko def amul lenn luñ ci bañ nag kon ñun ñooy xam suñu bopp baax a baax sàmm suñu ndaw xam ne ëllëg ñun dañoo war a doon loo xam ne nii ay kilifa la ñuy doon te loo def sag ndaw muy lu muy lu naqari bu ëllëgee sag mag dina mett loolu ci yow kon nag ko dara jar politiciens yi buñ ñu jaral ñuy ñuy ñuy ñuy xàddi suñ ngor dañu ànd ak suñ ngor ak lu mën a doon surtout ment ñun ndaw ñi ñun ñoo yor lépp ëllëg ñoo yor lépp bañ na ko ba sëñ Tuubaa dénk nañu téer desawu di saxaara ñun la ñun yàlla gën a fonk ñun ndaw kon nag ñun doon dimbali suñ bopp téye suñ bopp baax a baax waaw politique nag mënut a ñàkk waxuma nag buñ politique mais nañ politique te nam waree ñu ni ko sëñ bi bëggee ak ni ko lislaam bëggee eh, ñoom ñëpp yam kenn ku nekk ñoom seen njariñu bopp moo leen tax a jóg ñun nañ xam lan euh, lan moo ñu gën si suñu réew Euh, kenn ku nekk euh, euh, wan wane nga sa bopp nañu tànn li nga xam ne moo gën suñu réew te ñu bañ a parparloo wala ñuy nekk di def loo xam si nii ëllëg dañuy yàqal parce que Sénégal après daf fi lay des élection yi day jàll ñu continuer suñu live. ñëpp a yem politicien boo ci àndal lan la plan boo xam ne boo ko dafa muy def morom comprendre kon maanaam ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doxal suñu àddina nañ seet yoon wi nga xam ne ñun demee am àdd suñu àddina dox seet yoon wi nga xam ne ne arrangé wu ñu bàyyi yoo yoon waaye duy ay oto ba mu fees jam joxe benn kenn ku ne am ñaar téeméer kenn ku ne am ñaar kese la dëgg nag moom mooy njëkk mooy mujj aw politicien moom ñoom seen bëgg-bëgg rek la ñuy wër lu ñu amee nguur moom loolu rek la ñuy wër waaw te nag nu ñu gisee politique Sénégal loolu àndul ak taalibe quoi ñoom parce que taalibe wax dëgg yàlla dafay respecté li sëriñam santaane. melokaan wu ñaaw wi nga xam ne ni askan wi nemmeeku nañ ko ci biir langue politique gi lu ci mel ni ay fitna yoo xam ne ni day juddu ci biir campagne électorale yi te ñi koy def ay ndaw ñoo xam ne nii. dañ leen di jël di leen jëfandikoo ak ay jigéen ñu xamul dara di leen xeexloo di leen tojloo ak yàquloo alalu réew mi benn politicien dootu leen a jaral ñuy séq ab jéego ba yëkkati ab loxo jëmale ko kenn ci seen mbokk. man duma xeexal kenn bu ma fekkoon ci beneen dëkk boo xam ne du Touba si du Touba tamit du ma xeex ak kenn rawatina Touba gii nag moom man kenn du ma fi sànniw xeer du ma yebal ku ma sànniw xeer ndax man euh, ginnaaw lépp sëriñ Touba la te sëriñ Touba moom xeexluwul xeexluwul kon nag euh, ñun li ñu war mooy yem ci njàngalem sëriñ bi buñ ci yamee man li ma gis mooy <laughs> duñ dem sax fu ni sànniw xeer ndax ñi nga xam ne ñoo lay sànni xeer ak ñi nga xam ne ñoo tax nga koy sànni jaruñu ko parce que kenn ku ci sa njaboot fekkee sànni xeer bi amul image la koy amee rek image rek la koy amee xeexuñu réelu ñoom dañuy bàyyi ba image bi jàll ñu tegal leen ko ñu koy xool di la rey kon nag du jaal ñu la koy sànni jigéen ñi nga xam ne dañ leen yabal nag moom ak di leen recruter di leen yóbbu ci kaar naa leen nangam nangam ñooñu moom maa ngi jàpp ci ne ñu amatum xel la lañu maa ngi jàpp ci it ne ñu amut kilifa lañ doon parce que man gëmu loolu parce que ñi leen di yóbbu leen di yóbbu di leen dugal rek mais jëriñuñ leen parce que doo gañe fukk jël benn wala ñaar di ko tisaare ay nit ñu leen ñu ci toj seen i bopp ak di leen indil attroupement boo xam ne sëñ bi maa dee taal bakkan sa xañ na ci waaw toog jàpp sa njaamur daal laa ci gis. jur dem mitin jur jur sol tisat jur de xaayante bopp. jël to wa wa wa wa Sénégal ñoko bok ben jour la que le wa gagne wa bëgg ndaw ñëpp am xel ma commencé ko sama bok kenn ku ci nekk sa carte d'identité nga am yaay xam ki la neex ak ki la wa nga dem wa ko bu la kenn xeexloo ñu Sénégal bës bo jëlé xéer nga sani nit ak ku mëna doon sa mbokk nga xaar ñun ñëpp ay mbokk lan ñoo bokk nday bokk baay kon yaaka na loolu wuruñ ko mëna a def ñun waruñoo xeex xeex ak kenn sëñ Tuubaa mi nga xamni ne ñu yar jangal ñu ci téré mi xeexloo wuñu musta ta kon bon royé ci mom rek dara dara dara waruñoo jaral ñuy xax kenn nañ jël lépp teg si loxo yàlla. ñun jeunes yi. ñun ñoo war a am benn comportement boo xam ni kenn du ñu jël duñu utiliser. ak ku mën a doon. Euh, am nga droit euh, bu élection yu ñëwee nga sangu ba set dem voter ki la neex mais man daal ci sama gis-gis amuñ ku ma jaral may nekk ci mbedd mi di di yuuxu ak di sànni xeer wala may def benn violence yoo xam si nii day yàq suñu réew ndax ñun ñun ñooy avenir réew mi ëllëg kon nañ xam suñu bopp daal d'abord. Hmm. Euh, Sénégal ñun ñoo ko moom ñu ndaw yi. àdduna lépp loo gis nañ ko def si discipline mu jàll si jàmm jeex si jàmm loolu kese la mais du leneen. rayante bi lépp jaru fi ndax ku ci dee élection yaay perte. faaw ñu jël suñuy matuwaay ñun jeunes yi ñun xale yi jéem a xam fi ñu teg suñu tànk tax kenn ku ne rek si ñun xam ne ndaw nga ëllëg mën nga jariñ ñu ci réew mi mais boo jëlee sa live nga tey la ko tey jii rek xam nga loolu daanaka tooñ sa bopp la. ñu ñaan nag politiciens yi nañu dimbali laahi wa rasuli loolu nga xam te ne yu bon yooyu ñuy def nañu ci dimbali ñun ñu nga xam te ne ñun ñoo ci gën a néew doole ñun ñu jigéen ñi surtout ndaw ñi tamit loolu ñu góor ñi ñoom ñoo war a mobiliser wu xeex loolu mu jóge fi. kenn ku ci nekk war ngaa mën a am sa fulla ak sa fayda ba régler bu campagne bi jeexee ba mu leer na yow da ngaa war a dem wate ji nga noppi ànd ak dal dem ca urne ya xam nga ki nga bëgg a wateel nga dem sànni ko sa carte toog jàpp sa njàpp. ndax election moom ku ne xam na nu muy demee du sànni xeer wala yooyu noonu moo koy gañee ñoom daal nañu ànd ak seen nañu topp seen liggéey daal yaakaar naa loolu moo ëpp solo bis ba sangu ba set dem woote ji yaakaar naa moo mooy li ëpp solo sànni xeer ak yooyu noonu yëpp ñoom ku leen ci woo ku nekk buñ leen buñ ci woy ji ndax ñun ñooy liggéey suñu réew daal te li koy yëkkat yi du sànni xeer du taali pono yooyu noonu yëpp te loolu ñun ñoo ci loru gis nga ku falu bépp noppi yaa ngi ak say njaboot fal say ministère ak yooyu noonu ñu dee deewoon dañuy perdre 2012 am na ñu dee mujjul fenn ah oui kon maa ngi woo ñëpp daal ci yaar ci teggin waaw ci xam ne Sénégal fii ñun ñëpp bokk ndey bokk bàyyi boo sànnee xeer amaana tey sa doom ngay gaañ wala koo xam ne tey bu nekk hôpital mën nga ko seet politique nag nekk mbir moo xam ne nii mënta ñàkk ci dunduk doomu aadama ndax ci la ñuy fale ak fole suñu njiitu àdduna dëkk bu tedd bi di Touba sax donte Serigne Touba Cheikhul Khadim da koo sancoon ngir jàng ak jàngale tasaare diine jamono yi kat muccatu ci. loolu tax nag mu yëkkati seen kàddu dànkaafu lool ñi nga xam ne ni ñoo fi yeewoo te di yëngu ci wàllum politique. politique bu ñëwee Touba ñu xam ne fii Touba daa am na ndox ci ki na ndox ci ki nga xam ne moom dëkk li ko bëgg moom ñaar ci dox waaw Touba daanuy doxe kenn ko moom. dëkk bi gaaw ba néew nit mais kenn ci benn kàddu képp teel tënku képp ku fi ñëw bëgg njariñ njariñ mi ngi fi loo fi soxla mi ngi fi suñ tubaab wax na ko leer nañ bind a ngi fi. warmaal dëkk bi d'abord ndax dëkk bi dëkk bu sell la dëkk la boo xam si ñu loo ko war a euh, la loo xam si ni la yàq bu ñu si gis lépp lu ñu fi bëgg ñu jéem see def suñ kem kattan en tout cas man dëkk bi vraiment li fi politique ñaawlu naa ko torop vraiment ñaawlu naa ko torop te ñun ñoo ko war a ñun ñoo a xeex ndax ñun ñëpp ay taalibe lañ waaw sëriñ moom def na li war a def taalibe bu ci bëgg li nga bëgg sa diggante euh, sëriñ sëriñ bi moy nga def lim lim bëgg dal nak image Touba loolu ñun dañ ko wara bayyi xel ñun loolu ñun ñoo ci wara yar yaru te nekk lo xamanteni man de fi ma tok yalla xam daf ma metti metti metti ma ci kanamu yalla yonent bi wallahi la xam daf ma metti te loolu man gisuma fenn fo xamne ñun fofu lañ ko wara mëna faje a fajee fenn lañ ko wara mëna mën xeyna sama kaddu mom sax soriwul waye nak duma ci and mom te kenn mënu ma ci bolé كيف كما جسنا ما يلي جسنا جاي دكتي مم لو خبنني سامو عندي قالوا سرني مم دولا نوي سبب أمشي ولا مسوا تسيك تبع مم في طالب يقلا في وادي واو فينا كوفي عندك طالب واحد دقي على نيو عندك يبي أو نيو فيها بينا خمن كوفي عندي ولنا عندو طالب نيو بايا لك سلورو نيو خمن يجي تبع بولن كم فك يو بالله تخمن في دك خالد بسولو اللي بلوج دنيو ياتي دينه في الإسلام غورو نيار فك أغنيت تيرو فبراير أتوم 2019 كيلي ريومي دي سنغال وارخام kan jité wat am réewam ñi leen wara tab nak du ñen ñu dut askan wi ci juroom ñi nga xamne ni ñoo samp seenum dënd ku nekk am na ci faral waye nak li ëpp ci askan wi nee kët dañ koy nëbb ba ca bis ba ñu jël seenu xob dugg ca mbañ gàcce ga woteel ki ñuy woteel lu yalla def ñu xamne nonu la ah man mom képp ko xamanteni jital nañ ko manam bok ku fi yalla tek ku yalla ni mom moy jitu moko fi tek man andu naa ci ko lool mm-hmm. waye nak sama carte mako am na ko faral moom. dëgg yàlla am na ko am naa ci moom yaakaar. dinaa ko voté mais du ma ko wax nag. man maanaam ku ñëw rek. ku ñëw rek. waaye nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ne moom man su ma soñoon moom bu yàlla dogalee moom nguur gi moom bu ko amee moom laa bëgg bu ko moom laa bëgg moom na topp ci wàllu mat wàllu Ablaye Wade rek man daal lu ja taq ci Ablaye Wade bëgg naa man daal moom laa mënul dara. waaw <laughs> ñaan yàlla daal ku ku gañe rek baax na ko quoi ku gañe baax na nee naa nañu xool ki nga xam ne moo gën ci askan wi nañu déglu gaañi li ñuy wax. waaw uh-huh. bu ñu xoolee kii ci sa programme gën a méngoog li dëkk wi soxla rek. waaw uh-huh. ñu wooteel kooku. réew mi di Sénégal bi moomee boppam ci atum 1960 ak léegi lu mat ñeenti président jiite nañ ko juróomeel bi nag nekk koo xam ne nii ndaw ñi nga xam ne nii ñoom lañ tàllal suñu micro lii rek la ñuy xaar ci moom. mu yaakaar ju mat sëkk. ci ki ma am yaakaar booy ki nga xam ne nii tey ëllëg suñ ko joxee réew mi dina ko mën a gérer jàppale ndaw yi. képp koo xam ne nii suñu borom teg na ko fi sart yuñ farloo ak moom na ko def yërëm ñu yiir ñu ñu am luñ liggéey. ah mu def li nga xamante ne loolu la ñuy doyee ndax njit warul nekk ca kaw bàyyi njit ci suuf di raxas di leen sotti mbaa mu leen di tefli loolu xaaruñu ko ci njiit njit war naa fekk ñi nga xam ñoo gën a néew doole. mu dimbali leen ba ñu mën a dem waaye paar mu leen di jox ay somme yoo xamante ni da koy xëpp ñu lekk ko mu jeexal ñu dawaat ñu taxaw ci buntam déedéet du noonu na leen wutal lu ñu liggéey ji ndax dafa jot ñu dem liggéey ji moomal suñu bopp ndaxte may la jën kër war na euh, mu jàppale ndaw ñi ñi nga xam ne ni tey jii nii am nañu formation mu feexe ñu am jàpp ñi nga xam ne ni tey amuñu formation mu jàppaleen ci formation parce que nag wax dëgg yàlla dëkk nag ndaw a koy doxal te ndaw yi liggéeyuñu de wax dëgg yàlla ndaw yi sonn nañu trop kon lii mooy reportage bi nga xam ne nii seen télévision Mouride TV àndoon na ko ak yéen demoon nag nemmeeku ji askan wi laaj leen seen xalaat ak seen gis-gis ci tolluwaayu politique bi waaye léeg laaj leen seen xalaat ak seen gis-gis ci manipulation yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci géopolitique bi ñeel ndaw ñi nga xam ne nii dañ leen di jël di leen xeexloo di leen tojloo ak a yàquloo ba ñenn ñi sax di ci faatu. loolu nag li ëpp ci askan wi nag ne nan jot na sëkk nag bu fekkee dañ doon nelaw ñu yeewu. xam ne Sénégal benn bopp la mënuñu koo xar ñaar te nag lu coow li bëri bëri suñ borom moom pare na ci ki nga xam ne nii moo war a réew mi ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum